maa ngi défier Massaly mi dàq duul ci Sénégal na jéem a utiliser pexe bu mu mën a am amul fa xale bi musa porter plainte ni gendarmerie nii police tribunal la demoon Massaly mu ne démb moo duwul ci laay fi doomi xaram bi mu ne kii dafa porter plainte diw ne moo ma ëmbal porte plainte keneen police police bee ko woo c'est maa ngi défier Massaly maa ngi koy défier na indi fenn fu mama plainte keneen ak moom amul police ni gendarmerie ni section de recherche ni cybercriminalité tribunal la demoon affaire paternelle la ngir mu xam bàyyi doomam mu jundi turam rek mu dem yóbbu doomam bi nga ko biiralee sànni ko jom la dese ak ngor téye doomam ci biir ginnaaw bi nga kattee ba bëgg koo rey ne imaam nga ana sa lislaam quand lislaam bu amul yërmande l'islam bu amul considération l'islam bu ragalul ñaari bàkkaar yow katt nga njaaloo nga def ginnaaw bi nga njaaloo nga bëgg a yàqaat bi rey bakkan ci kan ci xale bu am 19 ba pare nga ne yépp yaa ngi koy def parce que da ngay jiite julli ana njëriñ yi ana njëriñ yi allahu akbar bi ngay wax ci julli bàyyi tuuti bu ne yaayam dafa ne allahu yàlla akbaru moo gën a màgg loolu da doon jàngi ci arab yaayam na ko kaay dégguma arab waaye gën a màgg wérul ndax newut fekk kenn bay màggandoor ak moom moo tax xam yàlla rek a wóoru soo xamee allahu akbar rek faaw nga am yërmande baat bi rek allahu akbar ci julli kàbbaru armal man ak moom du police man ak moom tribunal la man maa ko mhm. dem police mhm. kon ma dem police musuma police arrangement lay def gendarmerie moo gën a garaaw police. Mhm. te ñaar yëpp ma li ma bëgg mënuñu ma ko defal tribunal moom ko mën a defal naa ko porter plainte tribunal mais pas police ni gendarmerie. ok maanaam yow sa problème demoo police demoo gendarmerie da dem tribunal. lii leer dafa dem tribunal. wax ji leer. ok maanaam yow léegi léegi bi loolu passé noonu la problème yi El moo ko dugal ci coow li ak lan la wax. El Capo ni ñu demee euh, dama dem boobu d'accord na donc maa ngi commencé euh, ànd ak sama sœur bi ñu dem géej. Massaly nangu woon na biir bi ci commencement bi mais bi mu demee ba ci biir. mu ragal mu siw di nëbbu yëfi doomaram yi ci la bañaat mais masali commencement bi dafa nangu woon masali mi ñuy faral naan du moom ak moom la moom dafa nangu woon déglu leen ndaw si masali biir à l'âge de 19 ans sànni doom ji bañ ko reconnaître mooy wax nii. bon c'était un mmh. fa demee sama téléphone sonné. Mmh. bi sama téléphone sonné. Mmh. ma jël ko ne ko moom El Capo bi masali wax moo woo xale bu jigéen bi na ko dama soxla masali suma xarit bu yàgg la boobu Massaly kapo teg neen diil ak beneen jigéen di ngeen ko dégg ci biir déglu leen bu baax. mu ne xarit bu yàgg la. dama ko soxla dama ko gëj a gis dama ko soxla moo tax ma ne naa woo pour laaj la numéro bi nga jox ko ko ak jàppal ma lii lañ may defal kon la mënoon a demee. de dix-neuf ans ñu tëgg ko dil El Capo en tant que policier te liggéey ci institution yi gën a mag ci réew mi moom El Capo. Massaly biiral xale bu 19 ans en tant que responsable politique El Capo rusul yére bi mu teg diil ak Massaly moo tax Massaly ne moo ma ko wax déglu leen diil bi nu mu demee entre El Capo lu ma bëgg a wax rek mooy léegi nen ne maman moo demoon police porte plainte neen wax loolu loolu yëpp dëgg la waaye ndax droit la ci policier mu woowaat kim plainte naan ko nii la demee ne du waxu policier foofu policier bi même bu fekkoon dëgg la gaañu na daanu na lim def du dëgg du yoon waaye masali it wane na ne moom dafa irresponsable ndax policier wax ko lum ko war ta wax par confiance mu waxaat ko ci internet bi léegi impliqué na El Capo faaw kilifa mi woo ko secret professionnel <laughs> dafa am El Capo amu ko masali amu ko ñaari immature masali yi lekk nga coow nag waroon a dugg ci lii waroon ko ko. Mhm. ci lañ te El mooy policier bi ñu tuumaaloon ne moo rayoon booy bi cees te El Capo dafa amoon problème ak jigéen El Capo doon ko investiguer ñu am problème ba masali moo dox ba génnee ko Thiès ñoom ñaar ànduk cagala rek amoon neen problème amaan na léegi nag journaliste senegal liggéey mu ngi nii. liggéey mu ngi nii dem leen ngeen lijjanti El Capo laaj ko laaj leen ko lu xew dem leen ngeen vérifier est-ce que dëgg la ndaw si dafa mos a porte plainte mais duñ ko def dañuy toog rek o benn kenn benn kenn mu toog ñu naan ko waa loo xam ci masali dafa biir ah? dafa kooku tam wax non loolu du liggéey journaliste ah dossier bi man li ma ci def nii journaliste war nañ koo mën a leeral dem ci point sensible yiñ soxla dem laaj ndaw si ndax euh, test ADN bi amoon na wala amul ban laboratoire la ñu dem ci archive yi ñu génnee kan moo ko fayoon Massaly mu ne moom moo ne nen def ADN ñëwuñ ñu laaj ca kañ la dëgg feeñ journaliste lii mooy liggéeyam na ko dem def mais non duñ ko ref dañu toog rek seeti benn Cheikh Ahmed ak dara am naan ko waa loo ci xam mu naan waa xam nga bi nga ko yéegalee bi nga ko nangamee journaliste Sénégal da ngeen jàng nag te yéen sumay xarit ngeen xam nga def leen seen liggéey te bàyyi taxawaanoo copier coller bi ngeen nekkee dafa yomb trop. ubbi sa site defoo lu mooy xaar ko live rek dundi rek liggéey leen da ngeen di waa man nan laay toogee ëmb dem ci góor euh, El Capo naan ko damaa ëmb. demoon jour sama xarit mu conseillé ma nañ dem def test bi dem def test mu positif aw ma kenn ku may wax directement ci ku góor ki laa jëm. loolu de xel nangu na ko de. aw ma lu wax ak El Capo aw ma lu may wax ak ankafoo bu doon wax naa ak moom di di gasal kàmb masali moom ci jëmu boppam kon waroon na maa enregistré da ba léegi enregistrement yi dinañ ko téye ndax preuve la mm-hmm. loolu preuve la mais nag nit ñi dox ñu parce moom nee na demoon police di porte plainte ba mu yàgg nga ñëwaat na ko kii juruma kële la porte plainte. mës na am dégg naa mu tudd ci police Médina man man Médina fi laa juddoo fi laa yaroo fi laa màggee police Médina ci cat bi ba ci suuf ñëpp a xam ñëpp a xam de ñëpp laa xam de tapoo nekk tappool nekk fa booba tappool ngi ci mën a danse nañ li ñuy mën a danse mais am na koo xam ne dama doon ànd moom waaye léegi xaaral ma ñëw cheikh bi parce que li bi foog ma génn am na koo xam moom kooku may ànd moom di ànd ak moom da musuma xam ne am na lu mu bokk sax ak ñoom tey ma mhm. mu ngi wax di waat far ñu noddu dafa am kum doon àndal mu am ak moom réeroo ndekk kooku mbokki masali la jigéen jooju waaxuwaat na ba ci mama jéggalu ko déglu leen bu baax li ci dugal masali ak diil bi nu lu ci dugal El ak dil bi nu mu demee ba euh, mosale muse mosale borom leeli caga bi di wax naan ki dafa porté woon plainte lii la wax léeg-léeg la xool leen déglu leen bu baax. kitaab bi parce que maanaam yéen jigéen ñi dama bëgg ngeen déglu voix bi méttit bi nekk ci biir voix bi yéen jigéen ñi góor ñu bari mënuñoo comprendre. mu dem gisanteeg El Capo teg li muy teg wax ñu waxante li ñuy wax yëguma tënuma sama ëmb dama jooy dama souffrir. mënu ma di expliquer ci borom bu dara mënu ma ko parce que dama souffrir ci sama ëmb ma yaakaaroon naa ne doom ji ma ëmb du ma ko gis ndax na taru àdduna ndax benn góor teg ko ko ma am lu dafa sonn Cheikh Ahmed gel boobu tey moom moo wëlbati ko ñëw ci man baalu ma àq na ma maman ma ne ko ah ma ne ma baal ma àq ba may togg non doo xam sa heure bu mu war mu sa yoon nekku ci loolu nee naa ko diggante bakkan la ak doom lañ. doo leen ma waxal Salimata Gueye mu baal ma maa ngi live te mu respecté ma xam heure bu may live ba bu ma ci wax Salimata Gueye bi waale naan Salimata Gueye wax leen ko sëriñ bi mu ne bul ko woo mu ngi live may ko ba mu pare te na nga ko jox ci xam heure bi mu war a live wax leen ko Salimata Gueye mu yëg ko. El Capo bi muy def dil bi xale bu jigéen baa ngi toogoon. daf ko ne bul def lii ndax dafay diggante yaay laak doom El saaga ko ndey xale bu jigéen ba moom mujj ñëw jéggalu si maman wax ko carte gi yëpp. femme bu dee du dëgg rek na dugg moom ne loolu du dëgg. ñu ne bu dee du dëgg yow femme bi nga dugg ci live bu la neex nekk kii day fen waxul dëgg. man ñu ngi nodd dama lay bàyyi ñu ngi nodd nga dem julli timis man maa ngi ci suba soo suñ jullee ñu déggante incha allah mama léegi kaay leen mama na nga def mbaa yaa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm chef bi alhamdulilah yow sa kaa lan moo tax dama bëgg ngeen déglu ci làmmiñu maman bu baax a baax a baax a baax li xew yépp parce que bu ngeen ko dégloo nii du ngeen ko déggati du waxati wax jeex na jëf a des ñëw wax ma ko nga xaar ba mu nekk Amérique nga wax ma ko te waxuma ko depuis Sénégal ñu xamante daan demalante di ñëwalante pourquoi bien cher sutura rek suturaal sama bopp suturaal sama doom ndax sama doom sama nawle la mm-hmm. lii kese moo tax wax bal ko dama laaj ndaw si lu tax ñu xamante man ak moom ba miinante te musut maa ngaan lii waxu ko loolu laa ko laaj muy tontu. ok sutura boobu lan moo tax nga toog ba moment bi door ko wax. dama sonn. muñ ba sonn dama muñ ba ce que ça. déglu nga wax ji mu ne jaaxle ak ñàkk pexe moo tax mu ñëw ci internet bi. waaye nag Sénégal juge nit mu gën a gaaw warutoon a wax li li la waroon a wax waaye li ko dal bu la daloon yow nim sonne nga sonne ko yaayam diabétique dox ci ba dee yow lan ngay def problème bi mel nii la nit ñi mënta wax moo tax ñuy xaru waaye nit ñi mënuñoo dund sax naqaru doomu aadama déglu bu baax maanaam naqar gi ci ron voix bi laa bëgg ngeen déglu ka voix bi ak importance su wax ji mosali borom leelu càgg bi kataleer bu mag bi ci nitu Cees bi lor nga ñu de est-ce que sa yaay li muy dund moom taxaw na ci comme yaay taxaw doomam. sama yaay taxawu na ma waxuma lu ma metti non ndax jéemoon na dem gisu famille Massaly bi pour waxtaan ak ñoom pour ñu accepter biir bi comme yaay. dem na fa ànd ak sama maam ak sœuram. fan leen ko fekk. dem nañ ko. seen leen fekk ak HLM. route de Dakar. biir Thiès wala biir Dakar. non non HLM route de Dakar dafa am Thiès. ok fan leen ko fekkoon. waaw fan leen jotaay foon wala nekkuloo foon. non man maa fa. ok nan ngeen demee ak bi ngeen demee lan moo fa xew s'il te plaît. voilà juste dem nañ. Mhm. bi ñu demee euh, comme que moom accepté woon na ne moo jur. ba sama yaay na ko na ko yónni. waaw accepté moom Massaly dafa accepté woon. waaw accepté na ba nee moo jur. non léegi continuer ci li ma laaj la kañ la accepté léegi nan ngeen demee kër kilifa bi ak lan moo ko teew ak yéen ñu ne ñu ne comme dañ waxtaan ak frère am. Mhm. Ablaye sama yaay dafa waxtaan ak moom mu ne pour affaire yi foog ñëw ci kër léegi ci lañu ci lañ dem ci kër ga la première fois sax ñu dem léegi ci lañ dem ci kër ga bi ñu demee ci kër ga fa ñaari di jaayam yaayam Lamine mu toog feeram bi Ablaye toog aussi ma ànd ak sama tante ak sama yaay ak sama maam ak mu benn xarit ñoo ànd oh parce que kooku lépp fekke na ko oh kooku léegi bi ngeen demee kan moo njëkk a jël kàddu lan la wax ak lan moo ko xew. sama yaay moo njëkk jël kàddu. lu mu wax. lépp rek rafetal ko. Uh-huh. rafetal comme naka lu wax quoi sa lan la wax exactement. voilà donc comme que Cheikh xaw affaire xaw na yàgg man du ma di parcuriser yëpp mais dama ciy wax tuuti rek. Uh-huh. sa sama maam ban année la juddu 1946 maanaam ci jotaay ba ba ñuy wax maami xale bu jigéen bi ma sali biral bi muy wax na ko yow soo laalu toon xale bi du waaxu ba sa kër tuuma la romb fépp ma sali aroga dàq mer bi ci biir mbooloo mi rusul ragalul ça va tout sa julli gi amalu la njëriñ ndax jullit dëgg du ñàkk yar donc ci biir loolu mu dàq màggati bi juddu 1946. 1946 mu ne ko ci biti ay nijaayam ngi toog dàq sama maam ci man ak sama yaay sama tante sama xarit bi nga ko def. léegi fan la waxtaan boobu terminé ci lan ngeen d'accordoon ci jotaay boobu. li ñu mooy que xale bi bu juddoo balaa may balaa balaa balaa ñuy def dara. nañ ko woo ñu def moom moo wax loolu wala yéen yéen a proposé loolu. moom moo wax. li dafa am solo bi ma sali nangu ba bañ ba tëgg diil ak elkapo Capo famille bi topp rek topp rek ba dem toog waxtaan Masali moo proposé ne ci jotaay ba su xale bi juddoo. ñu def test ADN lépp leer xam nga fenkat day jënd temps <laughs> dama bëgg ma leen di jàngal fen tey fenkat day jënd temps dalay yaakaarloo loo xemem wala mu intimidate la soo moytuwul dama lay rey de noo du rey kenn wuy ma lebal ma am na waaju ma allo waa ah dossier bi mën di lëndi waa abal ma dara lëndi mu ngi lay xemem loo te fenkat maanaam bu fenee day indi beneen fen di ko nëbbee fenam dem ba fen bu mujj bi mënatul koo am ci lay perte lan laa wax man daal gars yi démb Sonko laa gis bàyyi p moo ma jox un million ah un million foo ko def ah ci nabu danse laa ko jëndee mooy bagage yu baax yu muy jaay noonu rek xam nga suma benn waaye du doon dëgëral ma jëndal ko àndalaa buri xam nga àndalaa mooy garab googu oh xam ko garabu Cheikh Ahmed nga xam ne boo ko naanee affaire bi day dëgër xam nga mu dimbale la àndalaa buri oh ok waaye léegi su ma bëggoon a am àndalaa ban numéro laay wootee ma ne ko noo jëlal sa temps defal 77 mu ne 77 ma ne ko 285 mu ne 285 ma ne ko 38 38 mu ne ma ñaari 38 ma ne ko mu ne ma répété ko un un fois ma ne ko 77 285 38 38 mu ne ma ci laa mën a am àndala buri ma ne ko ci nga koy am <laughs> d'accord léegi <laughs> ñu continuer déglu vocal dama doon naxante yéen rek am na mu leen solo. <laughs> waaye diggante ñëpp leer dina def test maanaam nga tamit ñun bu ñu waxoon loolu te tontu ñu amul sens mais moom boobu ci ndey mbind moo wax loolu ñu d'accord ceeb moom sama yaay continuer di yor doomam mu metti ak jigéenu biir mu metti continuer di yor doomam di suturaal doomam ba yàlla defal na jàmm léegi ak loolu yëpp euh, diggante bi yëpp masali musta weddi ne musuleen a génn musta weddi ne musuleen a tëddante oh moom nangu na ne benn yoon la loolu wax na ko ci biir nit ñi nangu na ne tëddee na ko. mu ngoog ca jotaay boobu Massaly dafa laaj dafa nangu ne tëdd naa xale mais benn yoon la kon kàtt gi am <laughs> eh, doomi xanaa mi bala ngeen di laay fay maanaam man su ma duggee ci coow rek bu leen di gaawal faral da ngeen di tey def ndànk maanaam masali nangu na ne kàtt na benn yoon moo tax ma ne ko kanam gi yaa ko moom ñun tànkee la ñuy lijjanti. voix bi tamit bi xale bi waxee yaa ko yaa ko moom kon leer na Ousmane Sonko ma ngi doon wax naan day dàmpuli ji waru ko yow moom katt nga <laughs> yow moom katt nga nangu nga sa nijaay toog sa frère toog say nawle toog xale bu am 19 ans toog nga nangu ne yaa katt masale katt kat bu mag bi <laughs> léegi maa ngi leen doon expliquer fen mel leen ma bu maanaam su su boobaa soo waxee ba pare nga ne mennoo après nangam xam nga kañ la fen bi di weeru mooy fen bu mujj bi boo amul fen bu ko couvrir da ngay weeru fen bu mujj bi boo amul lu ko couvrir da ngay weeru masali fenkat la moo tax mu jënd temps mu ne waa léegi bàyyi leen ba mu am doom su amee doom ñu def test ADN jënd na temps famille bi dañuy ñibbi toog xaar déglu leen nag fi vocal bi di mujj. Euh, numéro bi ma leen joxoon sànq pour àndalaa buri bi garab gu baax gi am ngeen ko bindal leen ma ko ma xam ndax am ngeen numéro bi parce que dama bëgg ngeen koy bind ma koy xool ñu ngi ma naan da ngay publicité ak yooyu mais publicité ma dama leen doon fàttali rek ne garab yu baax yi am na te man maa koy jaay loolu la rek bàyyi leen di ma toog ba ma sës bind leen numéro bi ma xool ne ji ji jël ngeen numéro bi ma continuer su ma waxee ngeen na ma damay publicité publicité moom c'est wax leen ne rek garab yu baax am na su dama gis nombre bi yeeg ba mi ba quatre mille sept cent ma ne ma wax leen ne garab am na rek la mais man du may <laughs> yoon lañ ko dante. ok léegi bi ngeen d'accordee ne su doom moom Massaly bi mu proposé ne bu doom bi juddoo ci seen biir kër ci kanamu famille ak sa famille mu ne bu doom bu juddoo ngeen dem def test. bi doom ji juddoo kan moo fay test bi kan. ii suma téléphone baa ngay fay. ko initié ñëwoon na wala ñëwut wala yow yaa daw wala moom moo daw lu mu demee. dégguma. allo. moom Masal. Mhm. bi sa famille teewee moom famille teew. Mhm. ngeen waxtaan ba ci termination waxtaan bi dafa proposé ne. Mhm. bés bu la yàlla mayee sa doom sa bakkan ci jàmm nga am doom. ñu def test ADN moom moo ko proposé. ok léegi bi mu nangoo ne kattante ngeen benn yoon moom nangu na ko moom Massaly mu ne benn léegi. ci li mu wax. ci moom moom loolu la wax damay répéter ay wax. waaw moom ci maa ngi ñëw maa ngi ñëw même rek même rek moom li mu wax loolu laa yor. Mhm. dama ne bi loolu passé ba nga am doom ci jàmm mbiri test boobu lan moo ci xew. téléphone bi oote oote oote ba sonn mënuñu koo jot. Mm-hmm. ci lañ jël xale bi foto ko liir bu tooy xepp bi doog nga xam ne yaayam duggagul duggagul sax saal. Mm-hmm. ci saal d'accouchement bi laa nekk. Oh, mm-hmm. ñu foto ko ñu daal di ko yónnee grand frère am. fekk grand frère mu Paris. biñ ko ko mu daal di jëlaat bi grand frère Massaly bi ngeen yónnee Massaly ngeen yónnee photo doom ji nga xam ne Massaly moom nga wax ne moo ko jur mënu leen a jot Massaly ngeen jot grand frère am yónnee ko photo bi grand frère Massaly mm-hmm. yónnee foto bi Massaly léegi grand mm-hmm. frère bi nettali leen ne Massaly daf ko saaga ndey maanaam ndeyam la saaga ci li grand frère bi nettali waaw daf ko saaga mere ko ci. Mhm. mere ko ci den ko den ko fotol doom juñ ko tuumal mu yónnee ko ko mu saaga ko ndey mere ko ci. mu yónnee ko ko mu saaga ko ndey mere ko ci. Mhm. voilà moom it mu dégagé ci responsabilité am da loolu aussi tamit foofu dama koy comprendre parce que rakam la. Mhm. voilà donc noonu la demee. léegi kan moo fay test ADN bi. sama yaay. ñaata la fay cinquante mille trois cent cinquante mille. xam nga ban laboratoire la ko defee wala xamoo bien sûr xam naa laboratoire bi de bu fekkee ne ñu ngi archivé bu ñu mhm. demee deux mille dix huit. Mhm. bu ñu génnee euh, archive bu deux mille dix huit yi dinañ génne euh, maanaam euh, sama sama sama dossier man ak Lamine. yow ak Mamadou Lamine Massaly. man ak Mamadou Lamine Massaly. ok. laboratoire ñu jox ñu rendez-vous dix heures. Mhm. ma ànd ak xale bi du am amagul woon sax quinze jours. Mhm. ma ànd ak sama yaay sama yaay nekk diabétique mhm. bokk ak nag métti beeg naqar ak man. suñu demee ba ci laboratoire bi ñu oote du jël waa laboratoire bi parce que seen fixe ñu woo ko mu ne mu ngi ñëw buñ ko oowaatee buñ ko jotee Cheikh Ahmed yow mii lañ jot. yow mii lañ jot def nañu ko ñaari yoon ñu woowaat frère am bi frère am bi ne moom comprendre comprendre dara ba tey daw nañ ci ba sonn daw nañ ci ba sonn wax nañ ba sonn mais janget janget fa lañ nekk dix heures ba quatorze heures naaj bi tàng jër ci liir bu tooy xepp ma àndaat ak sama yaay ñëw oh. toogee rek jooy li may jooy loo leen kasa la. Uh-huh. maa ngi dégg lu nekk nag mais li may jooy loo leen kasa la. Uh-huh. ni mu demee ak sama yaay fekkewu ko loolu rek moo ma métti. loolu kese moo ma métti. dox ci dox ci ci sutura ci. dox na ci waxtu sonn. diabétique amul doole génne trois cent cinquante mille mu nekk ci dëkk bi di jox xaalis rek du toppatoo doomam. wax na ci ba sonn daw nañ ba sonn wax nañ ba sonn ñàkk pexe nag moo tax ma ñëw ci internet bi parce que pendant ce temps weer du ñaari weer dafa yàgg. man maa xam li tax man maa xam li tax man ma génn wax sama doom day jékki-jékki mama ak sama papa dama bëgg a gis sama papa. ndax ci tabaski bi papaam dafa jël dajale doomam yëpp jour tabaski dafa toog ak ñoom ma vu statut mu ne mama lu tax yóbbu woo ma ci sama papa ma dem tabaski ñii ay nanam lañ ay doomam lañ ah mama ma jooy. ndeysaan xale bi na doon doonatul mu ngi màgg man soxlawu ma dara soxlawu ma dara maa ngi liggéey maa ngi sant yàlla maa ngi liggéey maa ngi sant yàlla ñaanuma kenn maa ngi toog jàpp sama jaamur lenn kese laa bëgg nga wutal xale bi papier mu dem jàngi bu ñu wutalantee papier mën naa verser yoon mhm. dégg nga xale bi mu ne mettit bi mu dund ci xolam juróom-ñaari at amul benn pexe moo tax mu wax ak man pour mu ñëw ci réseaux sociaux yi su fekkee ne nag ay nitu dëgg ngeen xale bu am 19 ans dund naqar ba yaayam génn àddina mu dundu naqar juróom-ñaari at wax ngeen da ngeen koy yedd ak xas ci li mu wax ci internet bi wala li ko dal yal na leen dal bañ xam ndax am ngeen dëgër muñ juróom-ñaari at bi muñ koo xamul histoire am juge ko day jafe mu ne buggul lu mooy ñu am kayit yi rek dooma mën a jàngi képp bëggul leneen mosal yi loolu rek la kii bëgg. maanaam nag defe naa ni leer na ba pare. maanaam kon yow ADN bu yàlla moo gën bu nit. maanaam kon yow. test ADN bu yàlla. li ma sali am tur. moo gën ni ko nit ñi di woowee kilifa xaalis biñ koy jiiñ yow loolu dara ñorul la ci li la ñor mooy mu nangu ne moo ko def mu jox sa doom ak xam comme bàyyi jël tur bi mu ne ci mu am kayit mu dem jàng ni moromam lii rek ngay leer. waa ma ma laaj la dara. ne. Mhm. man dama tëdd démb tey soog a ñëw. Mhm. man daray xaalis fo fo fokku ma. Mhm. su ma neexoon xale laa mel naa ni ma mar war a mel. dinaa dox di wàññi foto lamp yi defuma ko am jom nag di liggéey yaakaar ci sama doom ku xool sama doom xam ne sama doom xiiful man xaw ma woon kan mooy masal. man li may nekk ak moom yëpp man musuma woon xam kan mooy Massaly ndax sama yoon newul ci politique man damaa bokk fu baax man dama bokk fu baax xaalis mooy lan lan mooy xaalis maa ngi faj samay soxla maa ngi voyagé di yéeg ko wàcc di faj samay soxla di dimbali sama doom di dimbali ñi ma war a dimbali mhm. koo yaakaar nag yàlla suñu borom rek la yaakaar te boobu léegi yàlla yàlla laa lépp ci léegi li gën a am importance ci audio yi xam nga lu luwaawu Sénégal dafay bañ ko enregistré nit ñu teg ko ci internet te xale baa ngi senegaal moom. deful enregistrement tegu ko man maa ko def man la concerné kuy plainte man ngay plainte xale bi innocent la déglu leen mu waxal boppam ngeen dégg. Mhm. ne man lay ne man lay enregistré wala yëgoo. non non Cheikh Ahmed bu ma enregistré man yow laay waxal waxuma la ne pour nga teg man yow laay waxal bu ma enregistré. leer na. moom deful enregistrement yëgul enregistrement man maa enregistré da bëgg mu leer nañ kuy plainte man ngay plainte ku ci wax man ngay wax man maa ko enregistré maa ko teg ci internet bi du moom te yëgul ko xamu ko innocent la ci man maa ko yëg capot bi kon lu ci am fa ma ko tegee la lépp leeree Hmm? nante ma naam sa nit danga koy protéger teg ko ci axe bu leer judiciairement ba mu mucc ba pare mu am ndam doomam am tur wax ji leer na yéen a ko déggandoor yéen ñiy capturer ak outil preuve pour sonnal doomi jàmbur dégluwaat leen pour la dernière fois. ñu ngi nodd dama lay bàyyi nga dem julli timis man maa ngi suba soo suñ jullee ba ñu déggante incha allah mama yëg nga ne maa ngi lay enregistré wala yëgoo non non Cheikh Ahmed bu ma enregistré man yow laay waxal waxuma la ne pour nga fekk man yow laay waxal bu ma enregistré déglu enregistrement bi xamu ko leer na yoonam nekku ci moom yëgu ko maa ko def kon masali sa plainte bi ngay waaj a ñëwal Amérique na la leer na yokk naa ci beneen mooy man wax naa ak mama mama ma di ko enregistré yëgul ko ma teg ko ci internet bi ma jël engagement nag ci public bi ne maa ko def mama yëgul ko xamu ci dara. mama yëg nga ne ma ngay enregistré wala non non Cheikh Ahmed bu ma enregistré man yow laay waxal waxuma la ni nga fekkoo man yow laay waxal bu ma enregistré. leer na kon maman bu ko neexee mu plainte ma ndax enregistré naa ko te yëgul ko teg naa ko te yëgul ko yow Massaly doo bandi. <laughs> dina da ngay xaar yow <laughs> yow xaar yow <laughs> sëñ Bamba da xaar sa rappi rappi gi nga nekk sa dof dof gi ça marche pas ak man beneen level laa nekk xamoo sax li ngay def. toog fii di tuul naan su nekkoon Sénégal wéeroo sax yow dangay xaar mhm. dina bënn suma nopp yi balaa wuyu masal yi da ngay ràppi rek di napp booy yow doo bandi serve sax dangay xaar dangay toog foofu xaar mamaa ngi Sénégal dina dox dina daagu te doo am dara loo ko toppee ci yow te message bi dina jàll am looy wax doo sax ruus ruus ci boppam nga dul def def leen demande ma jël leen daf leen demande ma jël leen allo salaamaaleykum. maaleykum salaam. soxna si yow yaay kan ak lan nga bëgg a wax. waaw ah, maa ngi lay fay man tonton euh, mama la. lan ngeen bokk. maa yaay ñoo bokk ndey ak baay. macha allah lan nga bëggoon wax. donc euh, maman boo gisee mu génn wax démb. dafa nekk loo xamante ni sept ans la am xale bi mu sonn amul ku ko dimbali amul ku ko jàppale fu dem yaakaar fa ñu ne ko politicien la. man fi mu ne sax damaa duma xaw ma sax lan laay wax. Mm-hmm. la xale bi dafa sonn. Mm-hmm. nekk ñun ñu nekk famille boo xamante ni ku ñu xamul dégg nga ñu Cees. Mm-hmm. kenn yabuñu. mais Mamadou Massalé daal na suñu àq. oh mas kii bu ko suñu àq dalee. Hmm. barke Seydina Muhammad yàlla dina dañu àtte ak moom. Hmm. ndax yow mënoo yor. maa ngi maa ngi daal li ma bëgg a wax ba wax ko mooy ñun lu ñu laajte yomb na test ADN la. sama mag fay na ko balaa moo génn àdduna ñu koy xaar gisuñu ko lenn rek lañu bëgg bu fekkee moom mag la kilifa gi muy woote dëgg la suba na xëy dem woo xale bi ñu dem def ci tas te nag bu kenn fay ay médecin bu kenn fabriqué ay test danga ko def te yàlla tax mu leer te yàlla tax loolu dong la ñaan laajuñu ko dara bëgguñu dara ñu naan dañ ko topp ndax alal wala dara dañoo xam ne ñun fan mbokk fan la ñun ku ñu gënul gënuñu la dafa bëgg jigéen fii la ñu tase dëj ndeysaan ndeysaan ku baax ku sant sekk bëgguma tudd turam parce na ko yàlla yaram mu sol jàllaabe bu weex taxaw ci buntu oto ma romb ko mu may dragué di ma bëgg a doxaan ma ne nii kii est-ce que jigéen du romb garab bu ko romb mu sóoru mu foog ne jigéen la kii doomu biiralam yee bari kooku noonu mu naan jabaram la da koo biiral mu bañ xale bi tëdd ko mu soog a nangu soog a uuf jabaram ak doomam tey xanaa moom démb la mën a toog di wax mais ñu lenn rek la ñu ñaan bëriwul nga nangu ñu def test ADN wax ni jeex na voilà mhm. loolu rek lañ yaay booy ñu leen masawu métti na nag waaye ñu ngi leen masawu bu baax. métti na trop. Mm. jërëjëf amul problème moom biiral xale bu jigéen bi yaay xale bu jigéen dem dëj dëj ku dee romb ko mu koy daraage ci dëj bi <laughs> kii na dafa feebar il est malade